mu am mbégte am mbégte moom daan am li ñu mën def nañ ko li ñu jëm nañ ko xale xalif général di Tijaan sëriñ Babacar Sy Mansour di ko nii di ko ziar su defee discours bi xam ne njaboot gi nga xam ne ñoo soxla hôpital bi du mu nee njaboot gi du rek njabootu Tiwaawan ndax am na ñoo xam ne bu ñu feebaree seen yéene mooy ñëw Tiwaawan fajoo fi bu bu leen yàlla di moom jëlee leen ci hôpital Tiwaawan bi kon lii yàgg na ko ñaan ñaan nañ ko daaw ah, yàlla def na fekkewaat nañ ko ren ñaan ko ren ah li ñaan yàlla nag bii mu ñaan yàlla na ko ko yàlla may ci li mu bëgg ak li mu yéene ci hôpital bi waaw loolu na si ñëpp taxaw rek ndigal wéyee rek ndigal moom wéyee rek ñun daal à partir d'aujourd'hui gannaaw ndigal jib na ci xalif général Tijaan Sëriñ Babacar Sy Mansour lu ñu xamoon nañ ko def lu ñu mën nañ ko def ba réussite bi mu am réussite bi nga xam ni ay magam a ko jox ay waajaram jox ko ko yàlla defal ko ci ndam ndax ndamu diina ji la ndamu tariixa bi la mais ndamu Tiwaawan la